LVD TV, la voix du Njambour. ndeysaan mbokk nag nekk ci open presse xale muy alliance biram mbokk nag muy waajal dimanche le 18 diggante ak Anaconda Babacar da mooy topp rek ma jël lépp loo xam ne ambiance la waaye mbokk yi bu leen fàtte troisième tour de la Tabaski jàmbur production moo woote combat bu rëy combat bu neex mbokk yi lu gën a xewee waaye Babacar da mooy topp rek lépp loo xam ne ambiance la ma jóge fi après jere lool allez kaay maa ngi lay siyaare ji ci open presse xale ma gis nga ànd ak Tapha Tine day ñëw. waaw loolu li ñu war parce que di sonn suñu combat di sama xarit di sama doomu ndey maa ngi ñoo bokk benn jour bu ñu dugandoo stade lamb ñoo bokk benn jour bu ñu ñëwandoo école kon lu mu xew lu ne dama ci teew. ba xam nga ki muy bëreel. waaw ko bu baax di ñaan yàlla ànd ñun ñu may ndam. koy dal rek parce que un mois un mois jours ngi chaque jour contact ne ci ñi ñaan yàlla suturaal ko ànd ak moom. dama fekk dama fekk Albouri Parcelles. moom ci yow la des. ah est-ce que desul ci moom. pare naa fépp de. yow pare nga pour Albouri. ku dul Albouri sax pare naa pour moom. noonu la demee. ma dégg ne mu ne combat bi ci Ndiaye la desee. desewul ci Ndiaye de Ndiaye combat du yàqoo ci moom. les promoteurs on na la. waaw am na ñu ñu woo mais di ñoo woote di ba léegi déggaatuñu leen xam nga gars moom version yi fu ne lay na mën nañoo woote wax la mais mooy loolu noonu la demee pare naa fépp. Aja ñun noonu la. sama jëwriñ kii sama jëwriñ la iya, sama xarit la sama lépp maa ngi lay bëggee. maa lay jege bu baax baax. nama naa la de. maa la raw ana waa Tëngéej. dëgg fa dëgg jàmm. tey dafa da nga ñëw pour dóorale alliance Birame. waaw alliance sama sama sama deret la quoi. waaw daanaka yàlla may ndam rek. mais nah, yow yow da ngay waajal ay mbëru parcelle. non man parcelle. fala fala fala juddoo yaroo fa màggee fa. mais bawal bawal laa. deret di yëngu non pas deret di yëngu sax làmb barke Seera Fall. doo koy digal. waaw mu teg ko si yoon làmb moom na ko teg si yoon rek. waaw waaj nañ ko si lépp waaw waaj pare si lépp di xaar bis bi ñu jël lu ñu rek waaw te nit moom boo bëggee dara foog nga def dara. mais nga maa bi taxawoon na yàquwaat. jékki waaw waaw moom daa ragal avance bi rek caat wiiri wiiri jaari ndaare ne ko caat laa mujj jël dem waaw caméra yaa ngi koy wër nag muy wax. am naa man maa am droit def caat su ma ko jaabee mu jël dem la benn maa ko maa ëpp doole maa ko daa moom nag lu mu yaakaar nag muy nax boobam maa mun maa ëpp doole maa gën a nekk xale maa gën a sawar maa ko mun maa ngi dégg nee na arbitre balaa mu ñëw man du ma xaar sa arbitre siffler ma ñëw si kawam waaw du ma xaar sa arbitre ma ñëw si kawam waaw dama koy ñaanal jàmm rek yàlla na ko yàlla may wér ak wér ak tan ba bis ba bu mu taa avance bi rek caat wiiri wiiri jaari ndaare su ma ko jàppee mu xam lépp dëgg waa kii sama mag la ndax sama lépp la maa moom dañuy ànd si lépp muy alliance biram di ñaq ñeneen ak man ma nekk seen raq ñu raqoo ma waaw ah, kon seen sama bis la seen yëf sama yëf la. da ngeen di dund 100 pour cent. waaw ñun benn lañ ñun ñoo bokk dëkk fii ah te ñoo foondoo fii suñu mag lañ mais ñoo bokk nekk fii ñun dañ leen yaaga topp avant ñuy bëre muy ñàkk jariñu alliance biram ñeneen ak ñeneen waaw moo tax ñu doon benn. loo loo koy conseil ci bés bi. waaw bés bi moom xam na li ko war dëgg la seen ndam la jóge mais dafa war a xam ne ci ginnaawam muy man di ñeneen ak ñeneen ñu ci ginnaawam mais dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla may ndam moom alliance biram mais na xam làmb ji làmb am ji moo ko yóbbu fu muy jëm te yàlla yàlla may ndax moom biram maa ngi lay bëggee gën Badou Mbaye maa ngi lay bëggee kii sama doomu yàlla noonu la demee maa ngi lay bëggee lu bari Badou Mbaye tey yëmbal yëngatu na de waa waaw alliance nag moo ko lebal gaay yi Badou Mbaye Baye Fall dëgg ngi nii ku sérieux ku baax ku am jàmm borom xol bu rafet lii nii man billaahi bettu waaw naas. ba xam na bés yu muy bëree bés bu bés bu am importance lay bëri si carrière waaw boo alliance kii booy bii nii ki mujjee daan. alliance tourné waat jël alliance nga xam ne alliance ba léegi wàccul ci làmb niveau bi mu nekk du niveau dafa war a yéeg ci kaw alliance ay booy pokalaam yi ñuy laaj ñoom ñaar ñoo war a bëre grand combat wala leneen ak leneen alliance boo xoolee dafa xaw a tardé ci làmb mais dañoo yaakaar ne tey ji confirmation bi moo ngi nii dina am boo xam ne ki muy bëre ki muy bëre ndax ndax yomb na daan booy bi xajam na mën na bëre mën na lépp mais alliance liggéey na lépp ndax ñu nag moom ñu ngi ci combat booba léegi xam nañ lu mu pareeg lu mu parewul te am ñu xel ñaar ci booy bi muy bëreel di ko ñaanal ndam état bi indi boo xoolee li mu indi moog bekaay li mu indi nii moo ko ëpp te bekaay jël na tànk bi ba mu jeex daanu ko kon amuñu xel ñaar wala tiit sax ni booy bi dina am ak moom rëpp incha allahu rabi alliance dina ko daan mais dañ laa namm de amateurs yi maa ngi nii yow yow boo jógee ñëpp ay jóg sa combat la tax muy yéex. moytu bi moo bari. moytu bi moo bari. moo la ma may man nee naa leen. Demax wala Petit Lo maa ngi ñoom mooy combat. Demax mujjee bëre ak Baama Ndiaye maa ngi ñoom ñooy combat. Petit Lo bu jarbaatu Mor Lo na ñëw ñu bëre. xam naa ko bu baax lépp pare naa ak moom ci côté yëpp bu baru ñu bëri ñooñu laa yang a bëreel Badou Mbaye booy ñu may jox dama leen di jàpp rek daan il est temps ma yéeg ci kaw 6 combats 6 victoires côté loolu ma ëppale ah, ah ñëw ñu bëre ñëw ñu bëre wax Thank ah. you. ndeysaan maa ngi seen ñaxa jariñu baba jaxal maa ngi koy seen bib Diop waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw dafa jete tey jete tey jete rëcc dëgg waaw waaw Thank you. asalaamaaleykum mbokk yi yëmbal mbokk yi caaroy sam-sam tali maam jaaro ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax du nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp di ñaanal way dawlu yi yàlla yëral leen te xaar leen àjjana waaye mbokk yi duñ fàtte mukk ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñu leen di ñaan suñu borom dimbale ba ndeel soit suñu biir ndax njumtekat du wees te destin suñu borom moo koy sàkkul boppam waaye ñu ngi nuyu waa 14 ak waa 10 bu baax a baax a baax a baax mbokk yi tey ngi fi nga xamante ne nii mooy si yëmbal fekk fi ki nga xamante ne nii mooy Alliance Birame mu jëm si bis bi am solo le 18 digganteem ak ki nga xam ne moom Anaconda ñu ànd ceeg ki nga xamante ni nii mooy Ibulaay production duñ def lu jox ko mu nuyoo ñu daal di xuus si li nga xamante ni nii mooy waxal Alliance ñu ngi lay nuyu. waaw gannaaw baatu onze bi laa bismillah dina wol yàlla. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Eh, yàlla rek ay dëgg te mooy borom dëgg moo fi jox Bamba dëgg moo tax Bamba signé Bamba te wa halal on ni tabaxal huda jërëjëfe Serigne Touba gannaaw bañ sante yàlla julli si yeneen di gërëm suñu ñaari waajur di wax suma yaay yàlla na ko suñu borom xaare àjjana suma papa yàgg na si kanam gërëm suma sëriñ suma wasila sëriñ Basir fa alxuraan di wax yàlla nañu suñu borom taas si di siyaare xalifaam bu fi bàyyi muy suñu wasila muy sëriñ Gunda Fall mu Seex Basir fa alxuraan di siyaare xalifa sëriñ Mbàkke Fall muy sëriñ Cheikh Cokke xam nga di ko siyaare bu baax di siyaare maam Cheikh Fall ibnu Cheikh Ablaye Fall Ndar di siyaare Seydina Mokhtar Mbàkke nóoré ni sam-sam maa ngi koy siyaare bu baax di siyaare Seydina Ousmane Mbàkke borom guy faatu may ga géejawaay di siyaare sama waajur sëriñ Aydara Mbàkke bu sëñ Daam Faati bu maam Thierno di siyaare tamit bu baax sëriñ Cheikhouna Cissé bu sëriñ Mbay Cissé muy sama kilifa gu baax maa ngi koy bu wér di siyaare bépp kilifa diine bu fi nekk si kër Serigne Touba njabootu maam maaram bi yëpp maa ngi siyaare di siyaare sama mbokku Tidiane yi sama mbokku Laayeen yi Ñaseen yi Xaadir bépp kilifa diine rek ñu ngi leen di siyaare ba émission affaire yi dox. Euh, alias Birame li jaaxal ñëpp ñëpp di ko laaj mooy ak lamb yëpp di ko laaj amateur ak supporter ñëpp mooy ki nga xamante ne nii mooy alias Birame lu ko dugal si ki nga xam mooy Anaconda balaa boobu ñu ngi nuyu Thierno responsable politique mi ngi fii teew ñu ngi koy jax waa ci waayam lan moo dugal si Anaconda. waaw lamb la rek lamb la parce que ñun làmb la ñuy def ah. man dara dugal ma lu sul anaconda lu dul ñu fay ma kase bu ma arrangé ma jël ko ñu bëri ay nawle lañ ñun ñëpp ay xale lañ bu dugal di am anaconda ngeen di wax lan ngeen moo la dugal si alliance bureau lamb ji am na loo xam ne nag dañ koo foog te amul da ngay toog dégg ay commentaire sax ay ree dalay jàpp dañuy jël anaconda teg ko foo xam ne wallaahi naa si tollu ma fii bëre yooyu muy bëre bëre xale la si man du daraa tax ma wax ko nag yooyu ay bëre xale la sawaay waay làmb moo doy waar Anaconda yàgg na bëgg a bëreeg man mais tey la ko borom bi doog a sumb li ma ko waxoon laa koy waxaat lu ko waay wax lu dul am nga combat waxu ko dara ñi ko xam xam ma dinañ xam ne Anaconda ñi mu daan bëreel ak man ndaanaan la nag mais ñi mu doon bëreel ak man dañoo uute lool lool lool lool lool ñi daan ak man ñi ma daan na toog foofu rek nga imaginer nga xool ndaanaan nag mun doy am quoi mais ñi ngay bëreel ak kii ñam daan bëreel du bokk Anaconda mi ngi doog am combat te dimanche di ngeen xam ne li ma lay wax fii du sama place la mais dañoo gis ne Anaconda chaque jour combat am dafay faral di gaaw vite fait bien fait lay lay def est yaa ngi waaj loolu. waaw ndaanaan la mooy li ma lax léegi rek Anaconda ndaanaan la mais Ouzin vite fait xoola carrière Anaconda ñi Anaconda bëreel nga xool man sama carrière ñu ma bëreel ñoo bokk benn année bu ñu duggandoo si làmb ah. damaa bëre dimanche mu bëre dimanche bis topp xam nga ñu bëri ñu ngi naan ay yaa ko may chance mayu ma ko chance ñoo duggandoo si làmb ñëpp 2016 lañ bëri mais dama man def ay performance benn année ma bëri si trois combats doomu bay laa daan mbaytin orka daan wës jàmbaar année boobu maa nekk révélation après nag mu nëbbuñu woon bokk ay adversaire après dama leen fee bàyyi woon mais yaa gën a ak bëre ak man bi muy bëree caata ngéwél sax man la bëggoon bëreel maa ko bañoon caata ngéwél dem jël ko tey la ko borom bi tudd buñ jëflantee ba dina xam moom lu mu duggoon baaxul si moom da nga duggoon parcelle am ca ndam mu ñëw déedéet waaye nga ak lan lan la ñuy xaar ci dugg naa fa ñaari yoon ba ñett yëpp dama faa am ndam kon parcelle miis naa leen man li ma leen wax rek bëréewu ma ak parcelle anaconda laay bëreel te bu buñ jëflantee ba pare pare wu ma si ñoom de am na ñeneen ak ñeneen ñu des yee du anaconda moo tax muy xaar. li ci bàyyi nag nee nañ dafa bàyyi looy moytu ndax promoteur bi parcelle la dëkk mbër mi parcelle la dëkk euh, ki ñu tuddee drapeau muy Papa saw mu def lu ne ci làmb ju tuddee leen drapeau lan lañ mën a xaar ci yéen. loolu côté Papa Sow bi garaawul côté promoteur bi garaawul may naa leen mooy li ma waxoon si fee li TV rek. Papa Sow parcelle la dëkk Ibulaay parcelle la dëkk mais Papa Sow moom am xam naa ne sacrifice yi ma def si moom Anaconda def ko si moom xay na moom umpale na mais boo nee ko Papa Sow nes xale boobu ñu doon dóor moo nekk alliance Birame Mise dina xam bu baax li may wax man Papa Sow numéro 2 laa tuddoon soose sama yaay avant muy gaañu soose ba igri Fass la ma dénkoon démb rek woo na ma man Fass daanaka fa laa jàngee bëre naa nekkoon xale nekk fa ak ñoom Pape Ndoye ay sama grand lagrose nekk xale bu ndaw Papa Sow xam na ma bu baax a baax a baax ay ñoon Bamba Xaadim waxuma ko pour dara mais ñooñu ñoo ma yar damay gën a nekk xale xaadim buy bëreeg man xam nga wax moytul ma gaañ la bul bul bul sóoraale du ma la gaañ ndànk daan boobu laay gën nekk xale nekk foofu tuddoon Papa Sow numéro 2 sama combat mbapat yëpp moom laa tudd Papa mu sa bëre combat bu ma demoon këram laa daan fanaane kon man xam naa ne gënumaa yee si Papa Sow nag promoteur la cadre promoteur lañ sekk parcelle la dëkk loolu am si problème Papa am nañ si droit parce kuy wàll yaan sa dëkk tëggul mais man bu ma gisee ñii rek faalewu ma yooyu yëpp. la wala du lan lañ mën a xaar ci yéen ci wàllu bëre ndax ko xam Papa Sow xam ko combat bu neex xeex ak jëflante lan lañ mën a xaar ci sa diggante ak Anaconda. man nee naa la Papa saw laa tuddoon man ma tuddee Papa Sow mais il faut que ma yor jikkoy Papa Sow iri man Papa Sow laa tuddee woon sama bopp man bu ma xam ba Fass Mbaw fii boo fa demee naan alliance bi xamuñu ko. Fass Mbao boo fa demee naan alliance Birame xamuñu ko boo demee Jogo wala Thiel ma xam Mbakol nga naan alliance Birame xamuñu ko ñoom Papa Sow xam man Papa laa tuddee sama bopp bi may nekk xale ba ni ma màggee man Papa Sow ma daan wax xam la moo tax ma bàyyi tur daa amoon benn Papa bu nekkoon asalem di bëre man boobu bëree gu moo nekkoon i asalem saa yi bëree day bëree ñu daan ko dañ may woo téléphone sama mbokki mbay teen ak anaconda bokkuñu asib ay ndaanaa laa ñoo xam ne ay bërekat lañ laa daan man ay booy caa ay booy golfu mais mais anaconda nee na mooy pilifoor anaconda nee na mooy pilifoor te bu ngeen bëree ba foo ko romb di ko tóojal non man ay pilifoor ak ay perin foor ak yooyu man man du ma daraay foor man xam la laa ab taalibe Sëriñ Tuubaa bu xeebu boo xam ne damaa forcé bëre di jàng nekk si tak ak su mooy grand ku si mel ne suñu grand yoro bu écrit jari biraama coor wax dëgg fa yàlla day koo xam ne dafa ñàkk ki ñaan man wallaahi ansi lu ne lay def si man yoroo bu jali biraama coor xeebalu ma sama bis su ma écrit ndewaan ibra laay gëy xamalu ma la su ma tons tafaatin tey gis naa geste bi naagis na loolu mais ko non damay tudd kii rek ngeen may ma ko muy tafaatin dafa def geste boo xam ne dafa rafet fi mu jógee dafa sori am war a génn nag dafa war a génn mais dane ma balaa maa dem fenn damay ñëw fii ba pare doo ko dem di ko ñaanal moo xam lu mu bëgg si carrière am làmbam may dégg yàlla na sotti suñu borom may ko si ndam. mais ngay bëgg ci journée boo xamante ni daf ci bàyyi ay boo yoo xamante ni dañoo mën a mobiliser ci wàllu mobilisation foo toll. waaw ñun ñun mosuñu bëree dimanche. aja dégloo rek Baye Fall yi wala. ndigal non xam nga gis nga Ouzin man musuma bëre dimanche. bu lee tey tey tey sama carrière ma bëre dimanche te gis nga ni ma daan def stade tey wàllu mobilisation man su ma yoon nekku si su ma papa Thierno Diop nii ak suma yaay may mun a bi combat bi taxawee taf lañ ma ko wax ne ma wàllu mobilisation yëpp ñoo koy def Ibou Laye mu ngi dégg xam na si dara ñoom woo nañ ko ay billet billet lañ jënd may ma ko mu man. mu musuñu ma may bolo bu biyee si làmb sama combat bi sama papa dafa jël combat bi def ko combat am def si lu mu mën ak lu mu mënul chaque jour mu may nemmeeku fu may dem mooy jël otoom jox ma yombul man am na loo xam ne jarul wax fii yëmbal dafa doon pax dafa metti boo fi nekkee doonoo bañkat rek day tar mais chaque jour ñu ngi gis suñu papa Thierno Diop suñu grand papa Faye day def geste yoo xam ne waxuma la jox bi rek mais da lay encouragé suñu grand papa Faye ñu ngi koy nuyu bu baax wax ñun dàq ñu benn doomu yëmbal. nañ ñëw ñu jàppale ñun ñu am ñun amuñu lu ëpp yëmbal li may wax ni doyuma pour man dong mais man ak samay raq fii yëmbal dafa metti da ngay bëree daanu gars yi critiqué la fekk yow li ngay dund moo tar gars yi nañ jàppale mbëru yëmbal yi man waxuma pour man kese mais nañ jàppale doomu yëmbal yi autorité yëmbal yi nañ ñëw suñ papa Thierno Diop nag moo xam lu mu bëgg mais ñun ñu fi dëkk ak suñu yaay buñ nelaw suñu yaay yi laa ak suñu papa yi buñ nelaw ñun buñ amee bis duñ gis kenn bu politique seen jotee wala politique jot ñu ñëw guux suñ maay nii mais suñ yaay ñoom seen wàll dem na nañ ñu dimbali ñun ku dul jàppale seen doom yi nañ am neutre si ñoom quoi maa ngi nii suma grand pa fay moom it bu baax aw ma fayam Serigne Diop aw ma fayam ba gumbala xam nga Baye Diouf Mbaye Diaw sama grand Bamba Dieye koo defaal defal depuis mbapat ba arène wallaahi yaasin sama lépp moo ko yor moo xam li mu bëgg ko ko borom bi defal waa balaa loolu tamit koo defaal laay wax koo def dama daa daa jàpp samay combat yëpp mais combat bi damaa bëgg mu gën si teg loxo parce que yaa ngi koy confirmer léegi ñi siy bëre ñëpp ñëpp ñëpp am mbooloo te affaire bi am na fu mu toll si ñun te dëgër na lool lool lool ñu ngi koy wax koo defaal mu gën see teg loxo Baye Zal Seydou Bamba Dieye xaddam mafia Baye Zal bi ñëpp lees boro lii ma sol waxoon naa ko bi passé naa ko waxaat day suñ grand boo xam ne suñ grand boo xam ne dafa ñàkk kiñaan ñaan day ñuy def open press photo maam Serap bi ma sol wala photo Serigne Touba ma sol moo ko te wallaahi yaasin juróomi dërëm du ko jox geste boobu muy def mu doon ko neexoo mu naan ay sita àndal wala fii laa dëkk wala fii laa dëkk mais xoolu loolu musuma bëree te defalu ma yore saa yi ma waree dem fenn ma may jox yore kon lees boro ñu koy ñaanal lépp lu mu yàlla ko yàlla defal suñu grand góor gi Jóob amuñu fayam Samba Sène États-Unis ñu ngi koy woo si combat bi déggaguñ ko dërëm gaajo si gil ma lay séen wala boog yow doona too ko boog wala xam nga nañ ko euh, daam ñu ngi koy woo si combat bi daam Espagne sama rax Maguette Gueye ñu ngi koy woo si combat man ñooñu laa am ñoo xam ne dama leen di woo Moodu sama rakk maa ngi koy woo Papa Naar maa ngi koy woo si combat moom gis nañ ñu fi jàppee Sóora xam nga lu ma la Sóora Aliou Ndour Moodu Fall suma gaan ngañ demba Aliou Thiam ay ñoon kumbis ñoon Ayda Gaye jaaro ñoon tooy mbasa tey rek moo ma yee suma comme mafia bi ami kolle jaara ñëpp waa Jolof laa dëkk mbëru sam-sami tamit ak mbëru yëppalu take it.